يغسل الأذين ما اختار ليبنى مسيري ولا ليل لسوايا مدبريا بمن على سنر يدوم دبريا ترجع المكاره إيليا باخنا بشكري ووليا هن أرديت وأني راد بلا مكاري ولا أمراد رد لخير جيدي سيتانا من طيب الممر ولو تينا فر لخير جهات اللعين يزوغ لخيرنا المؤين هديتي من الله والنبي كل يدي سوا وسعد ذنوبي توفي وال الخاد الإلام خدم ديالي ما لأول بيام بلا لي اليوم بربي الخيبه أعزني ممن خلق وخيبا إلى الولا إلى إلى لاو Cheikh Abdou Khader kum jamonoon teel na la borom Baxdaat soo ko yëgi soo jariñ na la imaam ilimaan yaa raw ca naar ya yaa raw ca giir ña ca góor ña Cheikh Abdou Khader borom Baxdaad bàyyi sëriñ moo dooy sunu waaja dem na basaq jël na waaj yom tiraanga bàyyi sëriñ moo doo Abdou Khader sang ba faw xaa kuy borom ma xaama barsàq jël na waaju am yitte am xam-xam balaay saak saajo uxal bu gaawa loola mooma jooy loo Cheikh Abdou Khadir jël na waaju am tiraanga sang ba fonk kuy borom maqaamaay fa mu gisee baayam ba ndaw yi baayu Serigne Modou Abdou Khadir kaamili alxuraan yaa koy teeru bis ba mu génnee Tuubaa fekki sëriñ bu mag ba sancoon Tuuba Kajoor di jooy mbaa Kolda di jooy xoli jirim yeey jàpp ñibbi sopp dem a àjjana bëgg dem àjjana jiiri waa daa laa ilaaha la yaa seexo juddoo waa daan yaroo njaareem laa ilaaha illallah laa ilaaha tasrif juddoo laa mam jiiri yaa ne laal baax ku la laal baax ku laal ku la laal baax ku laal kala laal baax Cheikh Jéeri borom waa daan eh, ay laala bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëfe Sëriñ Tuuba mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah nuy ñëpp ñi fi dëkk ak ñépp ñi fi dikk sunu nuyoog sunu ziyaar ñu jiital ci sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général kulu murit di ko ñaanal gudd fan lool bu ànd ak wér yaram ak yegg ak yeggale waaye noonu it dañ koy ñaanale sëriñ Moustapha Mudu Mbend Fall xalifa maam Seex Ibrahima Fall Lamp di ko ñaanal gudd fan lool bu ànd ak wér yaram ak yegg ak yeggale waaye di beral ak cant ak nuyoo sëriñ Cheikh Mbakke ibnu sëriñ Abdul Xaadir moom mi nga xamante si mooy xalifa sëriñ Abdul Xaadir am tey mbégte moo xam ni am na tàmbali waaye amul yamukaay ndax jëmm ji toog ci sunu ginnaaw di sunu xarit di sunu sëriñ di kenn itam ci dëkk bi waaye di kenn ci ñun muy sëriñ Ismaïla Mbàkke sëtu imaam di adresse boo xam ni boo ko bindoon fii ba koro ni sëtub sëriñ Abdou Khadir ku ni mën naa tepp waaye boo yokkee ca suuf sëtu imaam moom keppay jot muy slogan boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ndax ris gi mu ris Mbàkke ñi ngi lay nuyu sa jëf ak sa pasteef tax na ñi nga bokkal sëriñ Touba ñépp teew na wax ji dañ koy tënk waaye mën nañ ci wax lu bari ndax 10 heures ci suba ba fi mu ne de matin ñi ngi ci kër gi kon jàpp naa ne ñi fi ñëw bari na ñoo xam ne fekk nañ ñu fi te bari na ci kàdd yi loo xam ñoo ko doon jottali waaye lii wala fi naan naan wuy yokk mar loo ca guux mu doy Mbàkke ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf ak a gàtt waaye ko dégg tubaarkalla jom ji mate na ko fit wi mate na ko waaye ngor geeg doylu gi moom nga ko kulóore kon ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal ñi nga bokkal Serigne Touba ñëpp. ci meen wala ci geñoog lu mu mën a doon nga xamante si ni tey ñëpp fekk nañ la fi sunu jëlee nuyoo bu njëkk bi ngir njëkkanteeg waxtu wi damay beral loxol taalibe yi nag sëñ bi ñoom lay jëkk nuyu ndax bu doon taalibe sëriñ si du am te sëriñ say nekk ci ker gi taalibe yi nekk ci naaju di sàkku ngërëm ci ñoom kon sunu nuyoo ngeen baal ma ko rek sëñ Abo <laughs> ma jooyal ko jëkk ko ci taalibe yi ñu ngi leen di nuyu jaa ngeen jëf. jëf ji mat na gis nañ taxawaay beeg jàpp bi ak ni ngeen sagale sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Ismaayila Mbàkke satu imaam foofu rek la ndax nit ku nekk fa mu nekk daf koy fonk jàpp ko ngir ku ko fa fekk man caa sagu jëf ji mën na la ñu ngi leen di jëfal sëñ bi dina ci ñëw ngir gën a yaatal sëriñ Abdou Xaadir Seexul Xaddim sëriñ Ismaayila Mbàkke soxna naata si la sëriñ Madiba si la <laughs> cey boo bàkk woon boo bàkkoon baa nga yëngal kenn du la attan waaye mu jaay lépp téye koo xam ne cëram la mu jëndee ko ak taali bi kon Mbàkke ñi ngi lay jaajëfal bu baax loolu kàddu yu njëkkante la ak waxtu wi rek waaye ñi ci des ñëpp gis nañ leen te dinañ ñëw ci ñoom su ko defee maam Thierno caméraman ITV ak acte 24 Serigne mbay Seck ñoom samay xarit la ñu ngi leen di nuyu jërëjëf kon ñu jox sëñ bi kàddu gi rek. ngir mu ubbil sañ Abo su ko defee lu ci des rek bu ma dikkaatee ci micro bi dinañ ko gën a jotale. asalaamaaleykum wa rahmatullah nee na mi ngi nuyu bokki jullit yépp bokki jullit yi ak bokki taalibe yëpp nee na mi ngi leen di baalu di leen baalu àq nee na mi ngi ñaan yàlla na saa borom yàlla yokk xéewal te dolli sutura si. nee na mi ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér. nee na coono yee ko jàpp ba baat bi xaw amuk coppiku rek waaye nee na ay kàddoom da koy jox xaritam sëriñ Aboo Mbakke ibnu sëriñ Muhammadul Murtada mu santal ko dëkkandoom yi mu dëkkal fii ci koñ bi ak bokki taalibeem yi nga xamante si mooy seen jëwrin ak ñi nga xam ni ay soppe lañ def ay daayira fu mel ni mbuur ak tuuba ak quartier bële ñuy wax Daaru Rahman ak bokk fi teew yëpp ak xarit yi teew yëpp nee na daf koy tënk rek dugalaale ci ñëpp rek nee na mi ngi cant cant xool goo xam daal dugal na ci ñépp nee na gis na taxawaay bi rawatina bokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi jóge ba Ndakaaru nee na buñ ci tuddee jëwriñ seex rek ak elaas ak duudu nee na loolu dina tëngaale mbokki taalibe yépp ndax ñépp nag gis na leen gis na it seen taxawaay nee na mi ngi sant fédération sëtu imaam yépp ak seen njiit yi nee na loolu mi ngi ko teg ci loxol sëñ maam Morme ak soxna Marème Dieng nee na sëñ Ebo su ko defee nga cantal ko cant ku wér rek ndax xam na ni bu ko doon wax du ko man ndax nag ren nag ni nu takkatoo ngir rek bés bi jàkk gis nañ taxawaay bi kon day jox sëriñ Abo mu soññal ko taalibe yi su ko defee rek lu tënku lay doon incha allah. Murtala sëñ Fàll mooy nuyoo mu ni asalaamualeykum wa rahmatullah nee na ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi nee na ñi ngi gën a fedd li suñu yaakaar ci seexul xaddim nee na ñi ngi sant yàlla bu baax itam teewe gi nu teewe jataay gi ndax jataay bii kat day jataay boo xam ne jataayub sëñ Touba la te sëriñ tuuba mooy sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Abdul Xaadir moom mooy sëriñ Touba nee na loolu ci pas-pas bu kawe la lalu ndax doxinu sëriñ Abdul Xaadir ci digganteem ak lislaam ci digganteem ak nangoo doon taalibeeb sëriñ Touba nekkoon nag banqaas bu réeréeré ci lislaam nee na lool day jullit yëpp mën nañ koo seede nee na sëriñ Abdul Xaadir dafa nekkoon jëmm joo xam ne saa su ne nit ñi war nañ di bàyyi xel ci aw doxinam ndax dinañu dimbali suñu doxin gën a mën a leer ci diggante ak sëriñ Touba suñu diggante ak sëriñ Touba nee na bokk na ci benn point rek. boo tegee sëriñ Abdul Xaadir ci kaw taabal mu raw ci ñépp mooy jëmm joo xam ne xamul lu dul yàlla sunu borom subhaanahu wa nee na daf ciy joxe rek benn misaal bu gàtt nee na dafa am benn waay boo xam ni dafa ànd ak doomam ñëw ci sëñ Abdul Xaadir ni ko sama doom jii dey dafa am doom te doom ji amul baay sëriñ Abdul Xaadir daa daal di wax ni laa ilaha illallah ni ko loolu de xanaa ña ko gëj a gisee ci yonent yàlla Isa te kat kay wax sax waxewut foofa moom nangu la xam ay bi nit ki jàppul ni nit am doom te leneen lu dul sagoom loolu mënul ne moo tax mu jël mbir ma nangu cee xalaat benn xalaat yóbbu ko ci yonent yàlla Isa nee na loolu day pas-pas boo xam ne sutura rek moo ko lal sut sutura soos rek suñ ko tegoon ci kaw taabal ji sëriñ Abdou Khadir dana ci raw ñëpp kon sëriñ la sëñ aboo nee na ñu ngi lay sant bu baax a baax sëriñ bi danga nga koo jox ndigal rek ngir mu santal ko mbooleem mbokki taalibe yi nee na waaye da xam ni lott na lool nag ci santal la mbokk yi nag waaye day yeesal rek mbooleem ko fi teew mboolem soppe yi mboolem xarit yi sëriñ Ismaayla Mbàkkeem sëñ Muudu Abdu Xaadir ci kàddu sëñ Ebo nee na mi ngi lay sant di la gërëm nee na gis na taxawaay bi gis na jàpp gi gis na it féetewoo gi te dara lalu ko lu dul sëñ tubaa nee na moo tax fas yéene wut doon dara lu dul taalibeeb sëriñ tubaa fas yéene wut doon ku liggéeyaa konub sëriñ Touba nee na ci sëriñ tubaa lay tàmbalee. sëñ Touba lay yem nee na ñu ngi lay ñaanal ci sunu borom yàlla na la yàlla gën a taxaw gën laa sàmm gën laa aar ba nga sut sa maam ju tedd ja sëriñ Abdou Khadir aw amin lépp loo xam ne sa maam ja sëriñ Abdou Khadir naaloon na ko ngir liggéeyal ko sëñ Touba lépp yàlla na taftalu ba nga yeggale ko ci barkeb Xaadimul Moustapha nee mi ngi sant ñëpp. asalaamualeykum wa rahmatullah amin amin